Guinaw Rail Sud mu ngi waajal nawet bi ci ndimbal mairie bi. vraiment curé euh, canal bi nga xam ne mooy canal bi gën a mag si Guinaw Rail mooy am na aussi yeneen canal yoo xam ne ñu ngi fii si Guinaw boo xam ne dèjà danaa fa dem léegi boobu ñu ngi koy net nettoyé am na yeneen yoo xam ne suba lañ koy defar yoo xam ne ci quartier Amadou Ndiaye ak Sotrac yooyu yëpp suba dinañ ko liggéey en tout cas nekk li nga xam ne dañ koy def pour dugg ci wàllu inondation xam nga mois d'août ak mois de setam ci Ndakaaru en général. ndox mi dafay bari. si benn bés bu ñu doon def settetal ak tamit curé caniveau yi délégué de quartier yi imaam yi ak ñi ngànk mairie bi profité nañ yëkkati seen kàddu di ñaar askan bi di bañ a tuur mbalit ci kanaal yi. ndax mbalit mi indi fi boppam ni ñi ko fi indi nag comme nit ñi ko fi indi nag bu ko jéñ maire wala bu ko jéñ waa mairie loolu du benn yoon waaye nag nit ñi ñoo war a taxaw ana fa muy tàmbalee ci imaam yi. ci délégué ci quartier yi wàcc ci population bi nak pour bi mëna défaru waye nak nit ñi nak ño digër bop li ci gën bari guddi lañ koy def gi santé nak pour ñëpp la nak appel bi may lancer moy ñu xamé ni mbir mi ñi ko def defu ko pour sen bop dañ ko def pour ñun li lay war a suuli ci jappalé bañ ci defati mbalit mi mbalit du pour canal auto yaangi ngi ñëw bés bu né bës bu né waxtaan nañu ak waa ci suba ba légui ñu ngi fi di ñi jappalé ci liggéey bi bës bu nek auto yi ñëw. li laay war soli nañuy denc mbalit mii ci kër gi bu oto yi ñëwee ñu ñu dugal ko ci oto yi mu yóbbu ko. nit ñuy respecté le code de l'environnement maanaam du mun a gën a mbalit si sa biir kër ba pare ñoo fekk sa bun kër nga ko fay sotti wala dem bun kër jàmm di ko sotti loolu baaxul. tëju canal bu mag bi nekk ginnaaw raay sud waxtaanee nañ ko fa tamit. bi bi ma koy wax sax boobu yàlla xam ne dama amoon volonté politique rek mais j'avais pas les moyens de le faire mais en tout cas su ma jom mayoon na ma su ma fit. ne lii danaa ko réaliser mais wax dëgg yàlla bu ma koy wax boobu aw moon les mooy sur place mais mais gëmoon naa yàlla ne lii danaa ko def euh, moo promet ko leen promet woon waakaati bi ne esplanade bi dañ ko dinañ bu bu pare ak kanaal bi balaa balaa pare canal bi dina dina fi jóge mais heureusement ren ci kàttanu yàlla ci pakaseen bi nga xam ne eh, vraiment ñëw na ci ci commune bi dañu sélectionné leen si am nañ ci benn montant boo xam ne xaalis boo xam ne eh, jël nañ ko def def ko ci pour fermer vraiment ce, ce canal-là xamna heure buñ koy fermer sax dana fekk esplanade ba nga paré wala esplanade bu paré ak diggante bi nga fermer xamna né du mat un mois wala du mat deux mois maximum kon suñu borom mën a def. kenn re loolu ma waxoon démb yàlla mën nañu jàppale ci ñu sanc ko commune de plein exercice ak acte 3 décentralisation ginnaaw raay sud de am na lu ëpp si 30 000 habitants ñuy yeewoo si ñaar fukk ak juróomi quartier ki la njëkkoon yéen fii si diwaan ginnaaw raay sud Théodore Semido Walfadjri